Amath loo indi tey. <laughs> loo indi tey ci waxtaan wi. Ah, reportage xam nga ñi ngi ci mars mars mooy weeru jigéen ñi. Mm-hmm. waaw le mois de mars le mois des femmes. Mm-hmm. waaw baan tànn sujet bu am solo boo xam ne xam naa ne jigéeni Sénégal yëpp tey. danañ ànd tóojandoo ko tàccoondoo ko baan. Ah, baa dinañ ko yàgg tóoj di. waaw. Hmm. <laughs> Oh. man li may tàcc bariwul nag de. pourquoi femme yàq femme moom may tàcc sama bopp. pourquoi femme yàq femme. waaw loolu loolu jaaxal na ma. ayca reportage bi. reportage bi man dafa dajeeg jigéen. waaw laaj leen. jigéen ju baax nu mu mën mel. lan mooy jigéen ju baax. ak kan mooy ak kan mooy kan ju bu rek moo mën a taxaw wax ak mbaaxam keneen ku ko wax ku dul daa wax la ko neex rek jëkkër ji doo nga ma taxaw seede ne sama jabar ji baax na waaye geneen mënu koo seede ba pare beneen affaire am bu dee bu dee am jigéen bu jëkkër jëkkër jee a seede bu dee jigéen goo xam ne amagul jëkkër ndeyam ak a seede ak baaxam dañoo da sa jabar mën naa cippi cippi mel ne wane baax wane lu ne waaye gis bu say la fekk say xarit génn ñu mbugal la ba maar day taal say boo génn doo doo mën a wax waaye léegi suñ ko suñ ko ne léegi la moo tax mënoo ci xam ku baax ak ku bon dañuy soppiku ci ay dañ ciy soppiku jigéen ju baax moom mooy doylu man pop man jigéen ju baax dafa war a doylu et ñàkk war a mën am am mat amoo matériel bu doy te mën a defaru loolu ci jigéen ju baax la bokk respecte sa jëkkër respecte say mbokku jëkkër di toppatoo say doom léeg sa jëkkër wax la loo xam ne war nga ko mën a tontu sax nga muñ ko say mbokku jëkkër léeg ñu wax la loo xam ne war nga ko mën a tontu mais doo ko tontu nga noppi loolu yëpp si jigéen ju baax la bokk da ngay gis loo xam ne mu leer la ne lii mën nga ko faj nga bañ ko faj teg ci sa tànk loolu tam si jigéen ju baax la bokk parce que bu fekkente ne lu ne tell rek nga ne dama koy faj lu ne tell nga ne dama koy faj da ngay dem ba nekk xulookat nekk waxkat nekk defantekat te fekk sax mun na am sax ñoo lay tooñ xam nga jigéen bu baax ku mën muñ lay doon ku bari sutura lay doon ku ragal riir lay doon ku ragal mbooloo lay doon jigéen bu baax ay mbokkam dinañ ko wax ay dëkkandoom dinañ ko wax fa muy sëyee dinañu ko wax naan kenn mënul neex ñépp sax te malheureusement ñun ci sunu période yi nii xeetu ñoom kiñaan xeetu ñoom soxor xeetu moom du fi tekkee du fi baaxee et cetera et cetera yooyu sax moo lëmbe ñun sunu sunu jamono sunu jamono ñoom wayjur yi ñoom moo gënoon simple sax ndooy jigéen bu baax naam xëy na dafa doon xadar ga walla nit ku teey lay doon nit ku réglé lay doon di wax ndànk di dox ndànk wàññi téelu téel ak réji réji ndooy jigéen bu baax day ragal ma riirandoo day ragal ay jotaayu futilité day ragal dajem ñàkk xorom day ragal tiisante ragal xuloo ak taaj ak wax ndooy jigéen bu baax day bari sutura lool day xam lu bari lool te ñàkk mën a wax lu bari lool xam nga dëkk bi fii kenn mënu fi mucc waaye li nga xam ne jàpp naa ko daal mooy xam sa bopp xam foo juddoo xam sa deret xam sa askan am looy bañ ba pare na xol bi set wecc leer nañ masha allah looy jëflanteeg nit nga jël rabbi samaawaati wala teg ko sa digganteeg nit. mooy gore mën a muñ am yërmande te it respecté borom këram ci ki am jëkkër bu dee ku amagul boroom kër la war naa am yar war naa am teggin war naa respecté doomu aadama bu mu gis jiital ci ay waajuram su dee ku yàlla mooy boroom kër nag lii première ci moom mooy respecté waajuram. boroom kër mooy say ay waajur kii sa ndey ak sa baay bi nga amul boroom kër ñoo war a jut ci yow waaye boo dee jigéen soo xasee am boroom kër bu la sa papa wala sa yaay woo la war a tàggu sa borom kër bu teree nga toog sa la bàyyee nga dem. war koo mën a bégal wax dëgg yàlla góor ñi lu ñu liggéey jigéen ñi lañ koy jox góor goo ci gis yoon na fukki nit wala lu ko ëpp di teel a xëy di guddee wàcc lu ñu liggéey yóbbu ca kër ga facture yi ñoom la saaku ceeb yi ñoom la courant beeg ndox mi lépp ci góogóor la tegee jigéen di fa sonn rek di def ci kër gi yaa ko defar si bopp waaye su gu jigéen jëkkër saso la ko comme bu la ko jëkkër sasee ba nga def sax war ngaa mën a xam ni dangay def ngir yàlla ak sa njaboot. baax daal c'est relatif ba pare dafa xaw a yaatu te malheureusement Sénégal moom fekk nekkoo di joxe kenn du ne la yaa baax loo fi mënti def nag si àddina te joxewu loo kenn du ne yow yaa baax jigéen baax ci sama xel mu gàtt mooy jigéen ju yaatu uuf ñëpp jigéen bu am yërmande jigéen bu am sutura boo xam ne loo nas ak moom wala loo wax ak moom boo ko génneewul du ko génne jigéen bu am kóllëre jigéen bu goxe waaye xam nga comme Sénégal moom nekk na dëkk boo xam ne tubaab fa la ñoom baax dañ ko jël rek kole ko ci kuy joxe ñoom kuy joxe rek yooyu yaa baax boo taxawee rek ak foo mën a taxaw nga xam ne baax na ak foo mën a taxaw war nga xam ne baaxoo ndax jigéen bu baax ni ñu koy gisee jigéen warul xalab benn moroomu jigéenam jigéen dafa war a màndu dafa war a tey jigéen dafa war a uti bañ a dépendre ci personne donc je déteste jigéen bi nga xamante ne léppam a yomba te tàllalu ko ci loxoom liggéeyu ko day tàll bareetu nag ci ndakaaru gi de fi doon ne bareetu fi lool de ndakaaru gi fi doon jigéen ñi am ñoo xam ne si doy nañu waat bu la ko woon a xam nga nekk ci marché yi wallahi bo fi ne ngay xam lu bari ah, jigéen léegi nag moom seen melokaan bu ndoy xam nga lan la mbaxal mu tàngala rek da ngay laaj tay lekk mbaxal mu tàngala rek da ngay da ngay laaj tay lekk rek deng mbaxal mu lan nee na jigéen jigéen ñi léegi jamono ji nii nii nii ah. mbaxal mu tàng lañu da ngay ràcc rek tay lekk mbaxal mu day nee na mbaxal mu tàng la. <laughs> da ngay ràcc rek woote nañ de. waaw <laughs> nee nañu góor ñi du ñu kenn. déedéet tant que deewuloo ba la ci jaaj ji. waaw du yoon de loolu moom du yoon. ba sol garaam bu sol koppati bu tuti. waaw ngay waaj a dégivrer ci jaaj bi. waaw di waaj a yàqu fa lañ lay gërëmee. waaye bu dul duñu gërëm kenn jigéen ñee ko wax léegi waaw loolu moom loolu moom loolu moom loolu moom loolu moom ma day jaay <laughs> day dëgg na ah non ah, loolu non baa na ngi nii mais wax na dëgg moo xam lépp non wax na xoolal wax na dëgg hmm. te mais nag du yoon Hmm. soo nekkee sa soxna. Hmm. muy doxal kenn mënul matale lépp. Hmm. au moins mu ngi doxal à quatre-vingt-dix pour cent. war nga koy gërëm su soo leen nekkee yee ñaar su yaayam yendu see wala papaam yendu si ngeen ko ah kii ngeen ma jox kat sant naa ko gërëm naa ko. bu bu defee lu yoon su deful lu dul yoon ngeen leen deful yoon. su fekkee ne jaarul yoon nga ni carrément jaarul yoon maa ngi bëgg a dee ba ngeen ma ko mayee ba tey nangam ak nangam ku nangam ku dëgër bopp la day def li nangam. bu tawee dee poxoram waaw ñun ñu corrigé ko waaye su fekkee mi ngi jaar yoon moom waxal. ban émission bi jeex na. sa euh, jëkkër su dee jaar yoon. waaw émission bi jeex na Baye Mouhamed. Sall si Mouhamed doxal. <laughs> te man da ngeen a wax dëgg rek. Ah. góor ñi du ñu gërëm ji ñu ci bari bokk. Ah. pour bañ a généraliser. Ah. pour ñu c'est que góor moo rëy gërëm nit. Hmm. góoru Sénégal góor. Hmm. bu gërëmee ba gërëm sëriñam lay gërëm. Hmm. ak gërëm sama sëriñ. moom bu dee ko wax la. Hmm. bu gërëmee ba gërëm sëriñam lay gërëm. Hmm. donc góor moo rëy gërëm ni mais xam nga baan. waaw jigéen Sénégal am nañ cër. jigéen Sénégal am nañ dayoo. loolu xoolal eh, barke Rasulaay ñoo gën a jekki jigéen ci àdduna bi. ah wax naa la ko meer leen rek mooy seen cat xamuñu nu ñuy soloo. jigéen waaw jigéenu Sénégal. Eh. li neex góoru Sénégal. lan moo leen neex nañuy woddu. barke Sëriñ jigéen eh! woddu. ci yàqu fa lañ lay gërëmee waaye budul loolu duñu gërëm kenn jigéen ñee ma wax léegi waaw loolu moom loolu moom loolu moom loolu moom <laughs> loolu moom ma dañ jaay mais <laughs> dëgg na ah non <laughs> loolu non baa na ngi nii mais wax na dëgg moo xam lépp non wax na xoolal wax na dëgg hmm. te mais nag du yoon hmm. soo nekkee sa soxna hmm. muy doxal kenn mënul matale lépp au moins mu ngi doxal à quatre vingt nga koy gërëm su soo leen nekkee ñaar su yaayam yendu see wala papaam yendu si ngeen ko ah kii ngeen ma jox kat sant naa ko gërëm naa ko. bu bu defee lu yoon. su deful lu dul yoon ngeen leen deful yoon. Hmm. su fekkee ne jaarul yoon ngeen ni carrément jaarul yoon maa ngi bëgg dee ba ngeen ma ko mayee ba tey nangam ak nangam ku nangam ku dëgër bopp le day def li nangam. bu toogee dee poxoram waaw ñun ñu corrigé ko waaye su fekkee mi ngi jaar yoon moom waxal. ban émission bi jeex na. sa jëkkër su dee jaar yoon. ah émission bi jeex na Baye Mouhamed. Sall waaw Mouhamed doxal. te man da ngeen a wax dëgg rek. góor ñi du ñu gërëm ji ñu ci bari bokk. Uh-huh. pour bañ a généraliser. Uh-huh. pour ñu c'est góor moo rëyee gërëm nit. Hmm. góoru Sénégal. góor. Hmm. bu gërëmee ba gërëm sëriñam lay gërëm. Hmm. gërëm sama sëriñ. moom bu dee ko wax la. bu gërëmee ba gërëm sëriñam lay gërëm.